Sénégal on a atteint un niveau malheureusement avec le régime sortant boo defee li nga war a def rek moom mooy presque le côté négatif tu sais pourquoi parce que gis nga récupérer les passeports de ceux qui ne sont plus en service les passeports diplomatiques yaa ngi fàttaliku passeport diplomatique amoon na fi problème. yàgg na fi am coow c'est l'objectif déjà c'est dans notre programme c'est d'assainir l'utilisation des passeports diplomatiques. Mm-hmm. c'est l'image Sénégal qui en dépend muy benn beneen bi ci des rapport yi bu fekkonte ne ñun ñoo commandité rapport yi def ko donc à, à la portée donc de la justice mm -hmm. on mais lii rapport yi li fi nekkoon le régime sortant au contraire ñoom ñoo waroon publier les rapports annuellement mm -hmm. donc en violant les règles n'ont pas publié les rapports ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait c'est de c'est c'est de mettre les rapport à disposition de les déclassifier pour l'an pour que l'exercice normal de l'État puisse se faire mhm. xam nga -hmm. des comptes ñëpp xam nañ ni mënoo liggéey état alors que def état des lieux reddition des ah comptes pour parler simple c'est l'état des lieux mhm. donc mënoo def état des lieux d'autant plus que dans lu fekk lu mu doon lu mu doon qu'est-ce qu'on a manqué qu'est-ce qui été fait qu'est-ce a été mal fait ñu jubbanti bu ñu ko jubbantee qu'on puisse partir sur des sur des rails parce que sànq ne vous avez beaucoup subi dans le mm. passé mm. ci wàllum désinformation mm. wàllum euh, euh, Euh, naka la ko waxee sax maanaam taqal nañ leen lu nekk. Mm. lu nekk wax nañ leen ko. Mm. subir ngeen aussi vous avez enregistré des décès. Mm. des emprisonnements. Euh, calomnie. tey jii ngeen nekk au pouvoir. ñu bëri ragal que ne voilà mën ngeen a fayu li nga xam ne subir ngeen ko. nañ dalal seen xel xam nga ces ces personnes là qui sont décédées environ quatre vingt jeunes. Mm-hmm. ces personne blessées ces ces gens yoo xamante ni seen famille dafa divisé wu ci lii. la seule manière de les rendre et les vivants de les appuyer de les aider c'est de faire de ce pays ce qu'il doit être mooy lan. qu'il ne soit pas mort pour rien en fait. qu'il ne soit pas mort pour rien c'est même rendre un très mauvais hommage à ces à ces perdus là que de nekk fii di ci ay fayantu par contre rey nit jël délibérément nga dóor nit bal ñun dañoo gëm ni ces gens là parce que justice moo deme noonu gis nga justice boo amee ci dëkk du fayantu de justice mais nga xamante ne nit ki dafa def ci erreur nga tegaat ko ci yoon. Mm-hmm. mais loolu day créer ce que l'on appelle l'équité entre les gens. mais est-ce qu'on impérativement voilà fay na lépp en fait. non mais la la la loi d'amnistie moi je ne suis pas juriste mais je suis presque sûr que cette loi d'amnistie ne peut pas rester comme telle. Mm-hmm. la seule chose dont je suis li ma xam man ci envie de justice en fait. rétablir la justice et rétablir la vérité par rapport à ces gens là yi nga xamante ni dañ leen tooñ ñii ñu rey leen ñun mënuñoo liggéey liggéey ba loolu duñ defaraat justice bi nga xamante ni duñ duñ defaraat li ba ñu may leen justice. Mhm. ñu may leen ñu may nit ñi opportunité ñu xam ce qui s'est réellement parce que ñi génn adduna ay doomi jàmbur lañ. Mhm. ñi génn àdduna il portait pour un combat pour mes enfants pour tes enfants pour les enfants de ceux qui au nom de cela. on doit continuer le combat pour rétablir la vérité pour que ñoom fi ñu tëdd ñu mën a dal